internet yi topp Télé Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci Sénégal Midi ni ngeen ko baaxoo am bés bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko gisee dañu am mbégte mu rëy ñëw fekk si euh, président Mamadou Diop Decroix muy secrétaire général And Jëf euh, PADS bokk itam ci coalition PASTEF euh, ñeel élection législative yi ñu dëkkmal président ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool. séngat ak yow jotaay. maa ngi lay fay soxna Fatou la gërëm di la sant ci li nga ma dalalati ci Télé Sénégal ak euh, li xew ci àddina bi. Mhm. li fi gën a fës jamono ji mooy élection législative yi ñu dëgmal élection anticipée yi war a am 17 novembre euh, ñu ngi ci campagne bi ñu gis la ci wetu Pastef waxoon nga ne danga leen di jàppale effectivement donc loolu mujjee naa nekk euh, Sénégalais yi lay déglu lan nga leen mën a wax ci li sabab nga dem jàppale ji coalition Pastef bu Ousmane Sonko. ma ne kon laaj la bu am solo boo ma laaj ma sawar ci tontu ci. ñun bi ñuy sos ànd jëf euh, booba euh, parti amu fi benn parti fi nekk mm. rajo amu fi benn rajo fi ne télé amu fi benn télé fi am <clears throat> ak benn journal euh, booy yëngu ci politique te àndoo ak ñi fi ne mm. dañ ne dàq sa liggéey dinañ la tëj kaso dinañ la torturer mën nga ci sax jaar dee parce que am na ñu ci jaare ci ñun faatu mm. ñetti yëf lan lan doon ut booba jamono booba Senghor euh, fukki at ak ñett la fi defar ci euh, président de la république na fi euh, juróom-ñaari at ñetti mbir lan doon wut moo benn mooy indépendance politique parce que Sénégal amul indépendance Euh, France moo doon dogal lépp lu jëm ci mbiru Sénégal <clears throat> ñaareel ba itam mooy euh, peuple bi sénégalais askan wi gisuñu woon seen bopp ci yorin wi mbay mi doxul njàng mi doxul wér-gu-yaram gi doxul dara doxul euh, ñetteel ba mooy ñu ñoo tasaare africain yi Afrique mooy continent bi nga xam ne man naa dundal doomu aadama yi nekk ci kaw suuf yépp ba ilaa yawmi diin mais eh, alal ji dañ koy roxi di yóbbu suñu réew yi ñu tasaare ko ñett yooyu lañu lañ doon benn am suñu indépendance ñaar askan yi gis sa boppam ñett Afrique nekk benn eh, ñoom eh, président Bassirou Diomaye Faye ak premier bi Ousmane Sonko waa Pastef laata ñuy bi nekkee ci opposition bi ñoom nee nañ loolu la ñu bëgg bi ñu demee ba falu daal di baamtu ne loolu lañuy ñuy dox moo tax ñu ànd ak ñoom parce que gars yi ñaare man ngaa wax ay yëf après di fan da nga wax leneen taxaw ci leneen ñoom nee nañ loolu la ñu bëgg a amal kon kay noo bokk lu nu bëgg kon ñun sañu noo def leneen lu dul pas jàpp ci déedéet parce que du loo xam ne dañ koy liggéey ñoom nun lu jóge ca àll ba war ci jàpp déedéet parce que euh, tool la boo xam ne ñu ñëpp dañ koo bokk ñoom ñooy jëriñ waaye ñëpp dañoo war a dal ci tool bi loolu moo tax ñun ñu dal ci tool bi dañoo ànd ak ñoom pas dañ leen di jàppale déedéet danoo ànd bokk tool bu ñuy bay léegi nag ñoom ñooy jëwriñ nee bind naa président Ousmane Sonko président Pastef en tant que parti à parti ma ko ànd bi ñu ànd ak yéen du ànd séentu dara lu dul lu dul fi ngeen wax ne fa ngeen jëm ngeen sax su ngeen ci saxut du ñu mën a ànd ak gis naa na ñoom fas nañ ci yéene sax kon nag mbir mi suñu mbir loolu moo ko alors ñu ngi ci campagne électorale euh, président def nañu ñetti fani campagne euh, noo ko jàngatee mais surtout lu ci tàmbalee doon gàkk-gàkk muy fitna bi ci yeewu lanay sa taxawaay ak sa gis-gis ci campagne électorale bi bon euh, man def naa démb bëggi démb Thiès lañ ko ubbee maak président Ousmane Sonko ñoo fa nekkoon ci maanaam ñi nga xam ne parce que maa ñu ne ma gars ñu ngi kër euh, Birame Souleye Diop donc ma doon fekk leen fa ñu ma fekk moo doon euh, Ousmane euh, Déthié Birame Souleye ak Malick Gakou ñu àndandoo boobu toog fa waxtaan waxtaan yaatu après àndandoo def. caravane te ñëw def meeting bi Thiès mooy meeting bi ñu ubbee campagne bi mm. euh, ma gis ci euh, orientation bi nga xam